waaw asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna bi yëpp rawatina sunu mbokk sénégalais yi nekk ci diaspora bi di nuyu këru kilifa diine yi kilifa aada yi e, ci noow man baakan Seck percussionniste artiste compositeur e, di nuyu waa Kaolack gi ma dëkk e, di nuyu aussi tamit sama naataango artiste musicien yëpp ci àdduna bi di jiital euh, sunu mag ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu ci musique bi et am lu ñu liggéey ci musique bi euh, ba yàlla def tey barke bi lépp ci ñoom la ah tey nag moom sunu woote tey maanaam tey lañ am un an at bi nga xam ne ne mooy at bi ñu neex bi ñu ubbee société bi ak léegi mu nekk loo xam ne ne maanaam taw féex la amoon nañ événement bu mag nak bu préparé won tay mais dañoo am décès en face sama kër euh suma jarbat sama rak suma xarit Eliman donc bima joggé jógee Allemagne démb fekk fi lolu tiis woowu moo tax lépp lu ñu waroon def dañ ko annulé may rafetlu tay aussi tamit nek ak membre bi nga xamné nek moy jéré jéré studio ak jéré jéré TV équipe bi yëpp qui commencé par directeur hein, Ablaye Seck sama mag euh, mom lay tek nuyoo bi ci euh, vraiment donc vraiment a Omar Saou, son manager hein, Sofia Dieng hein, ñom Kalaf El Hadj Malick suma Djum jum euh, ñom Kaaw Seck remercier aussi sama soxna ndax affaire bi yoon bi dafa metti trop manam ci bép côté nak hein, financièrement ak loo maanaam ñu bokk ndey ak baay ñun ñëpp ñooy añandoor ñooy reerandoor ñooy xam nga te ku ci nekk fii responsable nga kilifa nga donc ñoom it aussi maa ngi leen di beral mention spéciale ñi nga xam ne ne que mooy équipe bi màndal donc ndax liggéey bi su àggee fii rek ñoom la ñoom ñoo mën a am ay idée ay xalaat yu rafet maanaam gëm liggéey bi ba tey jii lépp lu ñu am tey dama naan grâce à ñoom donc kon maa ngi leen di félicité di féliciter aussi tamit remercier sama naataangoo samay mbokk journaliste yi presse bi yëpp nag ah ñi ñëw ak ñi ñëwul ñi am jot parce que jamono bii euh, kenn amul jot donc maa ngi leen di remercier parce que woo leen ñu ñëw rek donc loolu dafa neex beneen bi ci tegu mooy sama côté ndeyjoor sama doom mu ngi fi sama taaw sama xarit Babacar Seck ma bokk ak papaam ndey ak baay mu nekk ci sama wet fii ma am kontaan dafa mel ni ne que famille bi yëpp a ngi fi.

bëgg vraiment def nañu et donc li ñu def tey suñu borom ko donc moo tax ma après dañuy cancel annuler lépp ba prochaine fois donc ñuy ñaan yàlla suñu duggee ci ati ati ati ati ñu ñaan yàlla fekke ko ak ñun vraiment yàlla def ñu nous ko ak yéen. waaw sant yàlla rek xam nga bon àdduna moom soo ci nekkee man dama naan lépp lu gën ci man rek def aussi. yàlla bu ko suñu borom def sant yàlla mënul weesu single yi ñuy gën a dégg dégg actuellement fii ci Sénégal ak international bi donc yi ci gën a dox fii lañ ko defee donc lu mel ni Sidi Diop ah Bass Thioung ah Pape bi donc bari na pas mal de góor gi njaay pas mal de artistes yoo xam ne ñu ngi fiy jaar donc et yaakaar naa ne que dañ fay fekk benn qualité bu tax ñu war a mën a xool exactement par rapport sen carrière fi meuna dem donc je pense dama koy wax tout le temps dama naan kenn ñewul rek manam pour lu neex bakam donc ku ñew ci bërepp bi rek c'est parce que dang fay fekk qualité bi nga xam nek manam qualité bu bu jaar yoon la donc di di profito di remercier ku melni ni Doy donc euh, mom mo nek ci wal parce que nit ku ci nek dafa am sa domaine côté studio bi mom mo fi ne donc mom mo xam exactement li nga xam nek su ko defee mom par rapport ak carrièream dina ko réussir te ñun avant ñuy bokk ci musique sax ñun avant ñuy def musique moom yàgg na ko réussir ku nekkoon studio 2000 boobu studio Afrique benn presque mën nañ ne studio 2000 moo fi nekkoon ba yàlla def tey mu ko donc sant yàlla la li ma naan maak samay naataangoo yi yor studio yëpp donc li may ñaanal sama bopp laa leen di ñaanal ndax li may wax li ma gëm la yàlla na ñëpp doxle et man mënumaa lekk lu dul sama wërsëg ñoom aussi mënuñoo lekk lu dul seen wërsëg donc moo tax vraiment bilan bi ñu am vraiment ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax le fait que gars yépp di bëgg ñëw ci studio bi léeg-léeg dañuy fuul sax ba duñ mëna def lépp euh, côté bon côté lu melni côté kër mam Serigne Touba suñu wasila ku melni kër mam aladji malik wala kër Baye Niass wala Yof layen wala fenen aussi bari na ñoo xam ñu ngi fiy jaar ay tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc ñuy def loo xamné nek ñu ngi ciy gis seen bop donc je pense que lolu moom moo amoon solo ci li ngay def parce que sooy def rek nit ñi di ñëw c'est parce que li ngay def am na qualité donc te yéen ñi fii ñëw aussi tamit ko xam ngeen parce que munu ma leen gumbawuñu ñun ñëpp donc ñun ñëpp ay liggéeykat lañ te dañuy xooslu rek comme ni ko mag ñi di waxee dañuy góor góorgóorlu donc loolu côté boobu ñu ngi ciy sant yàlla dëkkandoor àq la dèjà man dèjà tout le temps heure bu may tëdd dama naan sama waa kër vraiment damay jéggalu samay dëkkandoo par rapport su enregistrement amee da ngay gis oto yi ni ñuy baree ak bi ñun musiciens yi ni ñuy café suñuy kii ak yooyu xam nga koñ bi do nit borom kër léeg-léeg borom kër ñëw sa buntu kër sax nga bëgg a gaare doo am foo gaare fekk te ñiy gaare ñu ngi ci biir studio bi ñu comprendre loolu je pense que ne ne que loolu moom mooy famille famille mooy ki nga xam ne ne que da ngeen a dëkk te doo leen tàqaloo donc tonton Sarr moom moo ñu dalal fii maanaam man bi may jënd fii moom laa fi fekk donc et eh, ba yàlla def tey jii doomam génn àdduna donc te doomam bu ma respecté la te bokk na ci ñi ma mëjj waxal bi may tukki barki dem di dem Allemagne pour dix jours dama gestu yem ci moom ne ko Ilimaan mu ne ma ma ne ko bien vrai que gardien baa ngi fi mais kër gaa ngi noonu donc kër gi seen kër la denk naa la kër gi quoi donc parce que mu dem na moo ko samay doom ñoom kaaw ak yooyu ay xarit lañ dañoo dem ba mooy loolu quoi donc lu mel noonu mënul am fii donc ñu yëngal dara donc côté art tey jii heure bi waroon na fekk Babacar gaare loo xam ne mooy loolu parce que moo waroon na tëgg tey taani gi ci ron point bi ñu may jigéen yoo fi yeeg yëpp xam nga donc ñu ka foore xam nga donc mel ni pagaay xam nga waroon na def live xam nga donc ku mel ni akasa ku mel ni ñoom Alé Mboup ak sama yeneen xarit yoo xam ne ne que maanaam ñi fi nekk donc buggoon nañ def leen loo xam ne mooy loolu donc moo tax comme yàlla nag moom mooy dogal yàlla moom moo xàcc donc dañu ñun dañu gëm yalla ba lepp lu ñu yàlla tek rek nan nan lii moo gën ci ñun. waaw de toute façon xam nga nit ku ci nekk xam nga comme li nga wax c'est important nopp aussi tamit ak xel dégg rek la laaj ah donc man mënoon naa jël sama xaalis ma def ko ci leneen lu ñàkk fayda eh, mais defuma ko dañuy essayer ah, mënuma comme sama xu dem mooy sama xu tey man mënuma yàlla rek moo man eh, te eh, dama faral damay faral di wax benn wax boo xam ne lu ma la dama naan nit ki ñëw di liggéey ak yow nga koy fay fin du mois sax doo kilifaam kilifaam nga ci côté li leen yàlla boole ci côté liggéey bi mais su duggee biir këram kilifa la comme yow et donc man investir naa am na ay employés yi fi ne di liggéey gëm nekk ay kilifa comme man donc je pense que ne ne mooy li ma wax sànq am na ñoom lu ñu xam man lu ma xamut parce que société noonu lay demee ku nekk da nga koy jox limu moom vraiment pour yalla la ci et nous, nous ñu ngi dund en famille ñun dañuy comme ñu ak donc sama mag yi xamna lolu euh, sama manager xamna nous ñi fi nek ñep xamnañ man dunduma man dama ma lancé appel bi ma lancer won nak ñun li suñu war ñu koy def parce que euh, tey wax musique sénégalais te do ci tuddu ku melni pap Pape Diouf ah, ku melni ku mel ni Thiat Seck ku mel ni góor gi Ndiaye ku mel ni Ami Collé Dieng ku mel ni bari na su ma naroon lim tey ñoo xam ne ne que jaar nañ fi xam nga donc yoo xam ne ne single yooyu yëpp fii lañ ko defee am na ñu fi nekk di def seeni i euh, seen i album ku mel ni Arsal euh, ah donc ak kan euh, ah waa Bastung donc ñoom ñëpp fi lañ defee macha allah Ngone njaay géwél aussi ñun ñoo ko produit xam nga donc Ibra xam nga donc yooyu c'est produit yoo xam ne da lay wóor ne ne que mu ngi marché donc kon vraiment loolu doy na sant yàlla sama waxu démb aussi mooy sama waxu tey ubbil nañ ñëpp porte yi nañ ñëpp bunt yi aussi ku ñëw aussi tamit dañuy xam ne ne que ñëw nga li ma naan ku dem beneen studio tamit dafay mel ni ne que yaa ngi ci sama studio parce que maag ñeneen ñi ñëpp benn la ñaaw donc kenn ku ci nekk li nga war a def rek ngay def kenn ku ci nekk li nga war a lekk ngay lekk kenn ku ci ne munoo lekk ba lekk wërsëgu doomu aadama donc moo tax côté boobu moom man ak sama conscience dama ciy tranquille saa su ne bari na nag dèjà labelu jërëjërë d'abord dafa am euh, label bu associé bu tudd Sénégambia ay tétay man ñu ngi fële ci Londres donc euh, war nañ def ay événement fii en Afrique ak maanaam fële ci Londres donc euh, pour l'instant ñu ngi war démarrer ak Pape Diouf le 24 décembre le 25 décembre le 26 décembre à Gambie donc euh, suñ fa jógee war nañ dem euh, Londres bon mom signé nañ ko signé nañ Sidi Diop donc euh, mu nek lo xamné nak signé nañ ko ay weer manam 6 mois 7 mois ci ginnaw. c'est pas que lo xamné nek luñu def légui la ba ci Gambie bien, ah, man maa ngi maa ngi kayit xam nga maa ngeek lepp mu ngi ci sama loxo donc ba nga xamné nek biñ koy def ku mel ni Yaya Diallo nekk euh, Londres ku mel ni Doudou Mbodj suma frère yooyu nga xam ne presque plus de vingt ans depuis may nekk ci Baaba Maal donc li ma naan musique man musique mënatumaa jaaxal parce que Baaba Maal yóbbu na ma fu ne gis naa dem naa fu ne bëgg dara mënatumaa jaaxal ci biir musique ba nga xam ne ne que am na lu ma liggéey ci àdduna bi tey ba turu baakan mën a nekk dara donc moo tax tey jii loolu sant yàlla la à dehors de baakan artiste baakan dafa am ay propre relation bi mu am ak ay nitam soo demee Luxembourg DJ Laurent c'est un grand promoteur sama frère donc euh, sama xarit dañuy liggéey ci lu bari ah nga dem Italie c'est pareil soo demee États-Unis donc da ngay gis ne ne que maa ngi lëkkaloog euh, su xam nga Gambie Gambie nag yàlla dafa def man falaa cosaanoo donc cosaan soo déggee ma ne cosaanoo falaa cosaanoo presque sama xale yëpp falaa ko defee xam nga donc moo tax Gambien yi man dama leen a fonk dama maa ngi dëkkoon angle sin dob donc defee fa sama xare saaku ceeb bi ma njëkkee jëndal sama yaay Gambie laa ko jëlee woon donc kon mu nekk loo xam ne ne jaar-jaar boo xam ne ne que sama jaar baat maam seex nekk fa donc ñu bokkoon nekk di xooslu ba tey jii mu ngi am benn académie bu mag boo xam ne ne que ñu am na suma benn xarit mu koy ubbi euh, Gambie donc euh, y a terrain football y a lu ay salle de spectacle hôtel lépp a ngi ci biir quoi donc lu lu ngi académie bi lu ne mu ngi ci quoi donc ba nga xam ne ne que man sama wareef ci Sénégal mooy dafa am waar wu ma war a béy bon su dul sax musique bi donc te loolu aussi du ma du ma du ma jóg mukk ci ñefe loolu parce que Sénégal laa gëm Sénégal laa am donc moo tax lépp lu ma mën a def rek dama koy def pour mu nekk. xam nga xam nga xam nga xam nga tey ji xam nga tey jii àdduna loo gëm. loo gëm yàlla fekk si la et man daal sama yaay daal na ma sas ne bu ma la gis nga tox cigarette sama ñii sax yàlla dafa def dama leen a mag ñoo bokk même génération mais koo ci dem këram rek ci noonu la lay dundeek ñoom ba alhamdulilah gis ngeen musique dara méttiwul dara yàggul sooy xool li gën a dox Sénégal li fi gën a dox ci musique munoo ko ubbi ci musique bi soit bokk naa ci orchestre bi wala bokkuma fi te sunu famille ko li ci Babacar mi mais c'est-à-dire que nous sommes soxlawuñu Nous wi non non non non non parce que les def nous am ay kilifa yu waxal def rek dañ koy discipline ak yar ak dal et puis di def gaay di dégg aussi pour nga jaar ci relever donc donc moo tout le temps rek dañuy préférer liguer lu bari wax lu ndaw donc fofu lañ toll moo tax ma la point bobu amna ben point bo xamné je préfère ma denc ko. waaw xam nga man dama né sama yoon ci musique man gëm naa ne que man limay def amul ben artiste Sénégal bu koy def man suma amé sama producteur manam damay ubbi porte yëpp parce que du man rek la ma wara ku ci sa wërsëg nek rek je préfère que parce que suñu bëggé musique bi jëm kanam. waroo am dara rek ne da nga koy denc pour yow kese sama gëm-gëm laa wax ah. ku nekk da nga am sa gëm-gëm parce que ku wóolu sa bopp rek wóolu sa liggéey rek maanaam li ngay def war nga ko mën a partager ku mel ni Baaba Maal Island Record la nekkoon man bi may nekk xale à l'âge de dix huit ans dix neuf ans fekk nañ fa Salif Keita fekk nañ fa Angélique Kidjo fekk nañ fa xam nga pas mal de xam nga donc ñu bari ñoo xam ne ne que tey ñun ñëpp su été jotee benn label bi la mais ñëppay dox donc kon kenn mënul xañ kenn wërsëgam donc man nag dama am waar woo xam ne ne que maanaam dafa fii ak yàlla ma fi bàyyi duma wàcc maanaam jeune talent yi ñun ñëpp dañoo bokk ci famille yu néew doole. bu fi kenn jaay kenn dara parce que kenn ku ci nekk dafa am foo jógee woon mu métti ba yàlla def tey ngay raam ni ay nit di la jàppale ba nga àgg fi nga àgg ah donc je pense que sunu rakk yi nga xam ne ne que bëgg nañ. dimbale seeni waajur te ñu gëm ko maanaam ku ñu yàlla booleel te ñu war a jàpp ci sa carrière donc vraiment dinañ ko def ngir jëmmub Serigne Touba donc le reste nag après ñu bàyyi ko ci loxo yàlla li ñuy ñaan yàlla ak li ñu bëgg ci askan wi ak musique bi ak même ci tarixa donc yàlla defal ñu ko ñu àggale ko jàmm. commencé mmh. gis nañ ne en l'espace des autres familles. muy mmh. mmh. gis nañ leen li ngeen apporté. ci kii boobu moo ñoo xam ne da ngeen apporté ci ci paysage musical euh, de Kaolack. yan projet yoo xam ne ña fa li ma leen di digal mooy gëm sa bopp rek fii moom àdduna moom. ku yàlla dimbali rek moo fi am vraiment te Kaolack gi ma dëkk am fa dëkk koñ bu naan ndar gu ndaw dañoo néew doole waaw dañoo néew moment su xam nga léeg-léeg nga jékki-jékki gis ay nit ñuy wax mënd mi tudd fii d'accord banlieue bi métti na trop daf may métti mais Kaolack gi ma dëkk amul fu ko gën a métti billaahi wallahi taalaahi ndax amul fu ko gën a métti maanaam ku ci nekk di nga xool loo xam ne ne tey jii peut-être que àdduna soo ci nekkee maanaam nit di nga toll benn moment boo xam ne ne que ñi ñu war a jàppale may lancé waat loolu di ko wax nguur gi ñi ñu war a jàppale nañ leen jàppale. parce que am na ñenn ñoo xam ne ne que du ñu mës a naxe am na ñenn ñoo xam ne billaahi wallaahi du ñu mës a naxe parce que ñooñu dañuy dee ci dimbalawaate ba ba baa ñuy dee mais am na ñenn ñoo xam ne dañuy ànd ak yow pour nax la. mais man par exemple nguur dimbalé wuma nguur jox defu ma dara nguur mayu ma dara né nguur lebalu ma dara mais damay dem ak samay propre moyen donc muy metti léeg ma dem jël sama terrain sax jaay xam nga donc kon pour man dama gëm fi ma dëkk gëm lima ma am donc motax très sérieusement côté bob mom Kaolack moom am no lu fa war ta fofu la am donc ta lolu mom ma ngi ci très bientôt nit ñi dinañ ci tek seen

Adresse email gmail.com L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar.